أعوذ بالله من الشيطان di noyoo mbooloo mi nga xam ne mbooloo jullit ya nekk ñëw fi ci néegu yàlla bu tedd bi ñu def nag appel ku ne asadu laa ilaha illallah rek ñu ngi la ciy woo xale yi ñoo la ciy woo man mi maam laa yore caabi rek teyal leen ngir suba ñu di ci def appel nag di ñaan yàlla mboolem ku ne asadu an laa ilaha illallah mag ndaw góor jigéen nga mën a am dara loo ci def dëkk nañ laloxo ndax dañ ko bugg a liggéey liggéeyu yàlla la nag mais loo gis nag am na njiit di sunu kilifa bu baax bi ñu déggee turam mënuñoo xamante ñun yépp nag mais ñun ñii imam yi sax dañ fay taxaw muy le maire Alioune nañ ko loxo bu baax te di ko ñaanal yàlla yéen bi oyof yàlla ubbi ko ba fu ci waay mën a nekk ci njoboot mi rek moom mu mën ko gastu mën koo dimbale ngir yàlla rek yàlla rek a tax yàlla jàppale ko ak mbépp julit nag bu góor ak bu jigéen bu mag ak ndaw yal na yàlla sunu sunu borom bi sotti xeyewal ak wér ak wérle ci Sénégal raxas xol yi laabal xol yi def ci tawit def ci liman def ci siklu la ilaha illa illallahu seydina muhammad rasulullah waaw jàkk ji nii daal la ñu bëgg liggéey parce que yàgg na fi trop depuis 1972 depuis 1972 ba léegi mi ngi fi euh, nekkee ci entre frontière u Waxenaan ak frontière u Baxdaad donc euh, muy tëli bi jëm ñetti mbaar donc ñi ngi ñaan daal euh, julliti àdduna bi yëpp ah képp koo xam ne nag am mën nga cee jàpp rek pour jàkka ji taxaw taxaw rek nga jàpp ci. parce que déjà plan baa ngi nii euh, numéro téléphone yaa ngi nii numéro tamit je pense que compte baa ngi nii donc ñi ngi lancé appel daal à tout le monde que ñëpp jàpp ci réussite du bâtiment bi nga xam ne président moom lañu bëgg a taxal di néegu yàlla.

ñu ngi woo collectif des imams de Guédiawaay ci bés boobu ñu ngi woo imam yi nekk quartier Waxenaan yëpp ñu ngi woo imam yi nekk biir Gounass Baxdaat lépp lu wër sunu secteur bi euh, jàkka ji nga xamante ne nag ñu ngi bëgg a teg xeer bi mi ngi nekk diggante Waxinaan positionné wu biir Baxdaat nekk ci angle bi nga xamante ne foofu la kalandoo ñetti mbaar yi nekkee ci biir loolu ñu ngi woo sunu maire yi nga xamante ne ñoo nekk ñoo wër jàkka ji Euh, maire euh, Jidda Caaroy kaw ñi ngi koy woo ñi ngi woo maire Medina Gounass ñi ngi woo maire Waxinaan Nimzat ñi ngi woo maire bu mag a mag bi maire Géejawaay ville ñu gën ko xam ci Alioune Sall euh, sunu bés bi nag dimanche lay doon à 10 heures programme bi dana tëddee comme suit récital Coran très tôt matin mooy jàng kaamil su jullit yi paree ci jàng kaamil bi muy alxuraanu yàlla bi euh, dañuy jublu ci waxtaan bi oustaz Abdoulaye Gueye ñëpp xam ko te mu cosaanoo fii biir Géejawaay jàngal ñu bëri fii mooy conférence bés bi. Euh, suñu paree ci conférence bi euh, kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa quartier bi dañ jël ay kàddu wax ci bés bi liñ ci xam loolu daal la ñu dëgmal ci bésu dimanche bi muy sunu pose premier pierre. pose première pierre boobu tamit taxul ñu ne am nañu. pas-pas bu ñu mën a taxawalee jàkka ji parce que suñ ko amoon duñu lancer appel nii dañu am as tuut rek boo xamante ne yaakaar nañ ne mun nañ ci départ mais taxul sax mu mun a soril euh, projet bi donc ci biir loolu ñu ngi ñaan jullit fu mu munti nekk euh, doomu quartier bi ñi nga xam ne ñu ngi cosaanoo daal wàqi naan Gunaas ñu nekk ci diaspora bi international bi ñu ngi leen di ñaan ñu dugal seen loxo ci jàkka ji bon am nañu ci suuf tamit euh, suñu numéro compte mi ngi noonu compte Pamecas la benn banque bu nekk ci lieu bi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 ورحمة الله تعالى وبركاته كما ذكر آنفا أمامكم لزملاء هذا إننا نحتاج إلى مساعدتكم لبناء هذه المسجد كما قال الرسول بالحق صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنه ولذلك أدعوكم أنتم جميعا كي تساعدونا في هذه البنيان ونسافركم أيضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته